ah génn leen dëkk bi yëngu na la <laughs> 25 kenn dootu ko defati li ma leen wax chaque jour rek Wally Thiès gaaw leen billet yaa ngi jeex jënd leen billet yi jënd leen billet yi leen billet yi ah, te commande billet yi xale yaa ngi yëngu de xale yaa ngi jënd billet yi tubaarkàlla macha allah Wally Seck war a ñëw Thiès sargal bàjjan ku laa sama bàjjan di mel duk suba du sañ bëri artiste yi war a génn ñu war a sargal bàjjan non dëkk bi dina yëngu waaye day bëgg waa Thiès rek waa Thiès ko raw <laughs> waaw baax